man gëm-gëm laa gëm parce que man ngëm-ngëm moo ma moo bàyyi fii. Sénégal xëy na mën naa taxaw ne Sonko kese ci sa am na fu ñu tolloon ci xeex bi ku dul Sonko ëpp ma proposition am na fu ñu tolloon ci xeex bi. Sonko rek laa gëm ni à moom amul keneen ku ñu bëggoon corrompre que man amul. ci tolluwaayu xeex bi. Mm-hmm. mais ngëm-ngëm kooku mu mës a gëm moo ma bàyyi fii tey. ngëm-ngëm gu Sonko gëmoon bañ corruption Macky Sall paroon pour def lu ne pour moom pour mu wàccee euh, ay armam loolu moo ko may lii lañ ma doon tax di jéem a proposé proposé wuñ ko président bi toog fi tey Diomaye <laughs> amul proposition yooyu nekk loon fi danger boo xam ne tey jii gars yi bëggoon nañ ko éliminer gisoon nañ ni président la waroon doon ñu jëm ko éliminer naw nawul mais bu weesoo Sonko amul façon proposition bu dul proposition jinne boo xam ni ne de Macky Sall ah Marème Faye da de Marème Faye Sall ah Amadou Ba man aw ma ko. barke alxuraanu karim ba léegi maa ngi fi doo gis mukk Macky Sall taxaw ne kii corrompe naa ko un franc wala ay nitam yu ko wër ne kii ñun koromp nañ ko ak lu ñuy rëy làmmiñ yëpp kenn yabul kenn du ñëw di la wax loolu. ngor la te aw ma te aw ma ko ah aw ma ko nekkuma fii di jéem a xool bu ma ko jëloon tey kenn waxatuma un franc soxla wu ma ko ci ñoom. constance Marème fay pareil. ba ci Amadou baa bu muy Amadou Ba kan moo ko daane bu ñu waxee dëgg combat bi kan moo ko rajaxe à la dernière minute ba may génne ay jabaram ba may génne ay lu yàqal gu ma ko yàqal kan moo ko fi yàqal <laughs> à la dernière minute la la këppati bobbeeg baat bi décrédibiliser ko te moom xam na ko ñëpp buñ ñu ko wër yëpp xam nañ ni kii moom booy bi moo la éliminé te avant boobu wax naa ko fi tout le monde ne leen man Amadou Ba ñëw na ci man ñaari yoon mhm. discuter man pour ma dimbale ko benn bi pour xaalis beneen bi ma bañ xaalis bi beneen bi mu ñëw na léegi dimbala ma bàyyi ma sax même boo ma yàqalu bu ma yàqal quoi mais man maa ko yàqal te am na ñoo xam ne bu ñu toogoon fu ma toog warax nañu alal gi ba dem seen yoon parce que ñoom pour ñoom am na ñoo xam dañuy wax ne moo laa jëlal xaalis bi nga lekk ko yaa ko moom non man newuma ci loolu xam nga xam nga xaalis boobu moomu ma ko mm-hmm. askan wee ko moom man ma loolu lekkal xaalis bi yaa ko moom moomu ma ko askan wee ko moom. voilà xam nga borom daraje ak borom man loolu laa gëm. borom sëriñ yi yéen xeetu sëriñ yëpp li leen daaneel lan la. Hmm. mooy alal ji nga gàntu mënuñu koo gàntu ñoom. très bien. voilà man respect boobu laa am ba léegi ci ñoom. Hmm. APR doo gis kenn ku dugg sama zone. tey bu ma lekkoon seen un franc. tey bu ma lekkoon seen un kon ba léegi ñu ngi taxaw billaay preuve yi la ñuy dóor fekk xool noppi bu yàgg mais damay saaga seen nday ba seen bàmmeelu nday yi ñu muut la ñuy def jonkoon seen bàmmeelu nday di saaga seen nday ñu ne muut ay bu ma leen lekkaloon un moo tax booy wét gore wétulu ko gore diiñ diiñ ko taxawal siggi man amul kuy dox Sénégal loo xam taxaw moom sëgg j'ai été digne bu moment bu ñu bëri sëggee j'ai été bu ñu jàppee samay soldats yëpp dugal ci kaso bi ma des fi man kase jàmmaarloog ñoom mel ni junni nit multiplier wu junni nit yàqal leen fépp lu ne jiñ nañ ma ko booy fu ne topp nañ ma fa ba fii ay nit wër nañ fi xoolal yoo xam ne man tàppetum tàppet du ma tàppet du may wax nit yi dem nañ fu ne di laaj fan laa dëkk nit yi dem nañ ba euh, benn GP buy dajale kii sénégalais ñëw ba foofu diw ak mais Mollah est-ce day ñëw fii Mollah fan la gars yi dama woo naan ma mais am na ñu ñëw fii ñu ñu yónni ñi ngi ñi ngi lay wër mus naa dugg sama néeg tëju si laaj ci mbedd yi laa koy defee parce que man man sa waay dee sama ak sama as pour sama askan moo ma gën a dee ci bopp bi metti dee ci naan para euh, paracétamol man bëgguma dee ci paracétamol xam nga dama bëgg di xeexal sénégalais yi ci mbedd yi bañ na ma këbaj bopp ak baat mu wóor ma ne man ci jihaad laa dee. naa la naa la benn affaire nag de. waaw sénégalais ñun man bokk sama dama part munul ne sax. Seydina Mouhamed wallaahi. na. Mhm. da ngeen bëgg dara jafewul xam nga lu jafe. Mhm. gore ku gore da nga am li nga bëgg te yow da nga doon xeexal démb ñëpp teg seen bët. Mhm. su la joxul sa wàccuwaay sax nit ñi dem bàyyi ko. <laughs> wallaahi loolu mooy dëgg sax muy métti <laughs> daw ñu benn yoon te raag bi tar na te dafa yàgg nag deux mille vingt et la bu ñuy tiire gaaya laa yanu affaire aji saar ba di ko ci teg tambour battant mu tàng jër réew mi ni boy ma taxaw ah, live and direct dix mille personnes taxaw tak tak tak ba ñu tam ñu naan booy yor nañ vidéo yor nañ kii ma pressé du faux pour avoir du vrai vuruj varaj dugg xool ci génne na leen bum on enchaîne on continue ba tey xoolal suñu mbaat <laughs> xeex xeex bi moom ku ñu waxoon Sonko mooy génn nekk président barke Rasulaay ba ci biir kaso bi mu dugg ci kaso bi gaa yi fàtte mu dugg ci kaso bi gaa yi naan day bokkam du bokk <laughs> ci boo demee ne Sonko ñoo la génne fii yi duñ tudd ñett te tudduñu ma duñu tudd ñu te tudduñu ma wallahi billahi wa taala aha duñ tudd ñett te tudduñu ma ci te ñu bokkoon ci processus bi dugg ci biir di xeex ba ci bu Sonko nekkee ci biir ba bu muy buñ koy indi volo bi vélo bi ba buñ koy indi tapi bi ba bu muy génn sol blouson du football ak doomam yi ba buñ koy indi kool bi di ko ci dugal ñetti numéro na ko yii nga mën a woo lépp maa ngi taxaw lépp maa ngi taxaw histoire boobu dama ko damay gëmm di ko réciter mun naa ci bind livre l'affaire Adji Sarr ba fu mu mujjee ba ñoom Sonko jour bi ñuy génn mun naa ci teg livre kenn gënu ma jege loolu te maa ngi nii ba léegi toog di ko maintain du ma ministre du ma député du ma maire du ma mais xoolal la xamalal laa am xëy na lu lu ñu bëri amul mooy respect bi am naa ko ci sonk am naa ko ci le président jomaay loolu moom cërale nañ ma ko doo dégg mukk ñu génn di wax ci man quoi que soit doo leen dégg mukk te fu ñu amee opportunité wan nañ ma cër Paris diisoon na xatoon na metti woon na président Diomaye gisuma sama frère ma bokkoon ndey ak baay kese moo ko ci gis ñaari yoon te du ministre du député du maire lu mu jëriñoo mais sama tur sama tur la jëriñoo bokkul ci list amuloon audience fexe na ba kurti kurti ba dugg bu mu duggee bu mu ne président Diomaye loxo la ko téye moxoñu loxo bi téye ko cinq minutes di wax ak moom ba ñëpp tiit parce que moo laa bu mu ci dégg mu téye ko nem nemmeeku ko wax expliqué lépp ba mu paree man mii laa la wax naa ko Sénégal message na ma te jour fête de la musique la félicité ma ba laaj ma album fondamental numéro deux ñu toog waxtaan ci ñu waxtaan ci parce que dama ko fàtte woon te loolu maa ko waxoon te digga bor la kon kooku jox na la cër malgré que président de la république mais fàttaliku na démb ak bërki démb bu mu doonul daara ma joxoon ko cëru nit cëru cëru nit laa ko joxoon moo tax fu mu ma woon damay jël fu mu waxee ak man damay jël te ba léegi loolu lañ sekk donc man ak moom ay ay doomu ndey lañ se gaay noo gaay noo ñu jot ko interview dëkk bi xat loolu amul activiste wala rapport bu mu tudd ci biir mbir yi bu nekk Sénégal histoire am yëpp bu mu waxee mu laa la fa tudd kon kooku bokk naa ci histoire am bu muy wax histoire wax na histoire Pastef wax na histoire école am wax na histoire yaayam wax na histoire yëpp mais histoire bi yëpp. xaaral ma jox leen benn anecdote génn loolu saawdaar la pour wane moo laa dafa bokk ci sama story dafa bokk ci sama life. parce que bu muy tarde tarde tarde tar kenn xamul man maa man la doon woo def ma gaayen di ma woo chaque. dix-huit heures et pourtant noonu laa ko doon jëlee sama temps te pourtant ku ma ne woon ku ma ne woon kii dina ma sa doon président donc man damay gëm nit ci bu amul dara man du ma opportuniste lu ma lay wax ni 2016 2017 ah xam nga loolu yàgg na léegi man boobu laa ko doon déglu di ko jox attention muy wax man di waxtaan ak man di échanger ma koy jox ay sound mu may jox ay sound di ma jox ay affaire mu wax naa ne le président Diomaye bi newoon na manager manager groupe groupe bu rap séeréer nekk njagañaaw muy jël di ma yónnee seen son naa ma mais ma laa déglu fi maa ko waay waaye mais jo ki ki ñi aay ñu waay ñu tooñante jo ñi aay ñu non ba li nga wax moo laa donc lañ sëkk moo tax bu mu déggee ni sama rakk ñëw na fa mu xaj mu ne xajal leen ko mu dugg mu dugg te amul audience mu toog ak moom jël moom temps waxtaan kaf ree ba pare joxaat ko rendez-vous ne ko suba ñëwaatal sama rakk bi ba jour bu président Diomaye di départ ñëwaat na encore hmm. <laughs> moom moo ko fa am <laughs> voilà parce que waaw parce que grand frère am mu ngi jëriñoo barke yu grand frère am te grand frère moo ko fa liggéey moo tax fii wét góor a ko góor a booy dëggu jub hmm. nekk ci combat gëm ko kese booy wéet sax deyal ci dëgg man loolu laa gëm wala loolu kese la gëm nag gisuma daray àdduna lu luqi samay bët ba mu war a taxaw ak ancien spermatozoïde futur cadavre di la fen nii parce que da la neex quoi da la fen di la fen mais mais yow jox lekk wala naan wala yaa yor sama dund wala yaa may rey ah, wala yow yaa yor samay tiyaaba ah. yow nga toog ni ay tànk loxo nopp moo war la fen quoi pour pour te faire plaisir daal yow ah. koo xam ne yow bu buy metti xaw ma la loolu moo moo amoon bu njëkk non loolu laa mënul gëm nit nit taxaw ni benn tànk loxo nopp bu taxaw ni nga war ko fen quoi non jomaay kii yéen lañ fekk jomaay. Euh, euh, di fen ni quoi di fen di fen. culture fen quoi fen roxaw di fen nii parce que dañ ko bëgg a <laughs> man day yàlla yàlla ma yàlla musal ci xaw ma lan kan la yàlla bindagum ma ko war a ragal ba jàkkaarloo mu di ko fen pour rek pour lu ko neex quoi après mu dem nalawi man ma dese samay bakaar ndax fen bi ko ma fen quoi wa oh, waaw ah, kulul xaq walal kaanu mu ran waxal dëgg doonte dañuy faat dañ lay faat ba dañuy tàggale sa bopp ak sa baat waxal dëgg loolu ñi ko war a wax ñoo jiite fen ah, ñi fa nekk di imam ak yu kenn non fen bi dafa grave Sénégal moo moo moo yàq dëkk ah waaw waaw loolu la de xaalis rek moo yàq dëkk moo tax ma ne wet gore wéttali ko gore booy dee sax deyal ci dëgg deyal ci dëgg rek dayal ci dëgg point. ñi war a faj daal bu ñu feebaree moom. ah waaw waay. billaay wallaay. imaam yi ngay wax nii ñoom ñoo gën a feebar ah non réew mi kay réew mi dafa jaxasoo de moo tax waaye di yónni ay xut bu samaan yu mel ni sama genre gi ñu leen koy dóor muy metti ci ñoom seen xol yi di dagg ñu xolal waaye yàlla yàlla daa yéeme de day indi borom dara ji yor ngaram grand bu ñuy wax gars yi di tëj seen nopp yi mu dem indi ay booyoo xam ni ci buuju bi ci buuj da leen a buuju ci mbalit bi la leen jëlee booy tàng jër mënu luñ leen dara boole ko ngëm-ngëm nag di fadd di di fadd waaw yow man man bu fekkoon ay wax kese moo may daane da jógewuma fi. Ah, xam nga xam lu ma neex si combat. <laughs> mooy ñi yëpp intérêt Sénégal la tax. waaw ah, wallaay intérêt Sénégal kese.